donc euh, l'entreprise est à pied d'œuvre avec les engins utiles pour faire les travaux. Mais c'est important de rappeler un peu le contexte de la avons ci travaux parce que Medina, comme on le sait. tali yu dafa projet fi renouvellement de réseau donc tey jii yu ci bëri ay tranché la ay dégradation là, ay nid de poule les ay flash etc. Il y a aussi problème volet assainissement donc tout ça projet bi en compte pour vraiment se préparer mu delluwaat ci état initial Talibou bu donc pour ça ici par exemple suñu nous tronçon bi tranches bi moo fi am tranché bi am na tuyau bu jaaroon ci suuf gars une partie de la route donc nous ñëw pour réhabiliter réhabiliter ko en terme de structure li fi c'est une structure nous li ñu dans notre jargon structure souple mooy maanaam dañoo defoon terrassement yi def concassé après def revêtement lu mel noonu rek lañ fiy delluwaat bi nga xam dina supporter les charges pour une durée de vie à 20 ans pour ce faire nous fait un nettoyage général après nous avons vraiment en terme vraiment forme géométrique parfait après nous avons loger le concassé de basalte suñu paree ñu le revêtement en enrobé c'est ça et l'eau aussi dañuy dimensionner le matériel adéquat comme nous ko fait ci marché pour des travaux de tranchées comme ça nous qui une li de a am c'est des camions gris qui sont mobiles c'est mobile pour son déplacement

Nous avons appelé nit ni bu nit ni fexé ñun mais tant que nous avons des problèmes les maires de sonn les adjoints dañuy sonn kon une synergie conquérante ensemble pour que Dakar soit une vitrine parce que je vais vous dire une chose importante Dakar mi ngi changé bu en d'autres occasions je le dirai mais Taï, merci beaucoup vous êtes venu biir xolou Medina parce que vous diviser Medina fi moy ligne bi

monsieur le maire je crois y a une autorité un pouvoir de police pour mener réguler l'eau. et puis opérateur yi ñëw di aussi et ça il faut que c'est un combat qu'on doit mener ensemble Opérateurs, yi nous donc on va faire la revue de l'ensemble du matériel avec les maires qui sont là avec le maire Bambofal. Sous-nous, paraît on va faire le revue aussi de la main d'œuvre qui a été déployée sur le terrain avec les différentes techniques qui sont utilisés pour refaire la route. Si nous paraît, on va essayer de faire tout le linéaire pour voir l'existant actuel, pour voir l'état de dégradation actuel de la route. Si nous paraît, on va revenir pour que le maire, M. Bambefal, puisse faire la déclaration finale en compagnie du maire, M. Ibrahim Seydi, qui va aujourd'hui porter la parole du maire, M. Barthélémy Diaz. Non, pas si je suis le

parce que li ma nangu c'est que ingénieur bi expliqué c'est enrobé ñu a def qualité la. donc nga que qualité bu dem au niveau 20, nga koy que yóbbu niveau 10 yaa yàq tali bi. boo deful vous gën delloo fa la fait. mu jox ko des compacteur pousse-pousse yor sotti quelque affaire avancé dem mais vous taw bi fa peu da koy ba koy dem donc vous lay interpellé nangu man xam nga nag moom bu jotee rek di ngeen ma dégg bala nga fii daggati tali même bu la Azur autorisé dig ma wax la ne da koy dagg. Médina ku ko xam xam ni commune bu neex a dëkk la commune bu rafetoon la commune bu taaru la woon ndaxte xeexoon nañu ba mbedd Médina yëpp defaroon nañu ko ba mu desoon ñetti mbedd kese rue 17 bi moo ñu dese woon diggante 6 ak 4 dese woon rue 33 diggante 20 bi ak 22 dese woon tamit euh, rue 4 ak rue 2. ak benn mbedd bu amoon suuf boo xam ne gannaaw église Gibraltar bi la mais lépp defaroon nañ ko ba Médina tàlli ñeret wante comme que ñun ñoo doon wax naan assainissement bi bu tawee day ball dañoo bëgg ko ci dimbali te du compétence mairie compétence état la bi ñu état ne jagleel nañ leen sii milliards pour ñu defaral li ngeen bëggoon waaye dañ dagg tali bi dugal ci defaraat tali bi waaye ñoom état la ñoom ñoo tànn ñu koy defal ñoo tànn seen STP ak may fay ñun ba ñu naan waaw dañoo jàppoon rek nii comme que juróom benn weer lañ ñu waxoon rek Medina la ka daan yàq comme que tali yi baax na day gën a baax. dugg ndaxte gannaaw ba ñu daggee tali yi dugali dañoo abandonné sax liggéey bi Medina souffrir na ñetti at yi weesu. métti na ci ñun lool sax ndaxte même taxi boo ko duggee. maa ngi lii nag tey ci benn journal ñu bi ni jaar Medina moom jéggi siraat la. wax dëgg oto yu bari yàqu na fii keroog damay wax ak ministre Amadou Ba man ko mais monsieur sonn na ñaa mun ma li ngay wax xam naa ko damay dem kër Thierno Madani sama ñaay ru toj donc foo leen natt Médina weesu na ko occasion la tey comme que yéen a ngi fi may ñaan ville de Dakar euh, Thierno madaani daf may yóbbante mhm. gàmmu Omarienne bi dafay ñëw bu yàggul mhm. mbedd yu wër mhm. gàmmu Omarienne bi mbedd di wër kër Thierno taga dafa am lamp yoo xam ne dafa daggul ngeen saisir ñu Ali Diaw mu gaaw koo defar tali yooyu tamit am na yu ñu ci defaroon mais am na yoo xam ne revêtement bu simple la rek ñu jël ko en priorité parce que ñoom it comme que bokk nañu ci après laa yéen ñoom ñoo fi nekkaat ci Ndakaaru di fi amal seen i xew donc ñu jàppale leen ci bu baax a baax parce que xam naa ne sax programme ngeen ko ci seen planning bi ma gis mais pour comme que ñoom dañoo xewle lu lu jege mm-hmm. Nous, sommes un peu. donc délégué de quartier conseil municipal Médina euh, nous mouvement de famille qui sont de Barthélémy mm-hmm. politique passé nous sommes ngay Nous Nous mm-hmm. commune Médina pour démarrer travaux hier salat yi ci loolu ñi ngi gërëm ñi le maire Bamba Fall le conseil municipal de Médina Nous wax leen que Dakar benn bopule la mënu ko xaj ñaar Dakar bi ñu bokk moy mooy sacerdoce su maire Barthélemy Diaz ville de Dakar lu muy def aussi ci maire yi la koy def moo vraiment nous tendons la main au maire Barthélemy euh, Bamba Fall wax ko que le maire Barthélemy le conseil municipal sont disponibles pour vraiment aider la population soulager la population de la Médina encore une fois monsieur le maire nous lay féliciter ñu lay encourager ñu wax aussi population Médina lii nga xam ne du nous aussi ñoom ñoo ko tali li koy yàq nit ñi Tout le ko tuur ndox moo koy toj comme l'a dit le ministre Seydou euh, le maire Bamofal prendra toutes les dispositions utiles et assurera la police municipale pour que li nga xam ne ñun ñëpp ko ñun